waaye mën nga maye neew alaaji sëriñ Cheikh Oumy Mbacke Fallilu Baye Fallu sëriñ Fallu fajkatu aajo bi ah ana Baye Fall yi ana Baye Fallu sëriñ Cheikh yi ana Baye Fallu sëriñ Cheikh jóg alaaji Cheikh Oumy Mbacke Fallilu jóg leen màggal alaaji Cheikh Oumy Mbacke Fallilu Baye Fall bi Baye Fall bi كذا توكلي فارغا المواسرقا وقبل سرى ربي الذي بطاطرك كلامي ونياتي وفي لا توجد إلى من كفاني سوء أما لما تنقي ودرى وسكا كفاني حفيظ مانع جملة الغناء والإخانة بابا به أسر النسكا كتبت وخدي سكر ربي مخاف كاتبا لمن خباب عن كركلا ساسان كركا كرمتا وفقت الكل يا خير مرسلين يا خير مرسلين ku sopp yonent Yàlla Muhammad dugal taxaw ca kaw nu màggal Muhammad Rasulullah ya xayra mursalin walayka salatun tibuha ak jalal miska kasartadu ñaxanna wasatana man walayka salamun warfa yudaril mulka qur'an ya miftahu walayka taha waxal li daal sax sax wal wal iska di mbooloo mi mbooloo mi nu ñaan nag ñu dal sëriñ bi dafa am ñu dal ñu dal dafa am lu mu bëgg jàllale li mu bëgg a jàllale magam ju baax ji Cheikh Mouhamadoul Mountakha yónnee ci moom magam ju baax ji sëriñ aboo baraka yónnee ci moom sëñ abibu wax ko lii mu ko wax nan taatan mbakke yaa ngi sëriñ bamba sa maam képp li yàlla bëggoon yonent bi bëggoon ko sëñ bamba képp moo ko def kon mbakke bu nu ñëwee nag fii tey bayëg si fii yéen ñu doonu sàkku si lu baax te sëñ fallu man lu ko ëpp nañ ni tekk te dal te déglu sëriñ bi. sëriñ Abibou moom Cheikh Mouhamadou ñu ngi lay Abo mi la yabal di ko jaaree ci moom mu mi nga xam ne. moo yabal doomam moo yabal doomam. Abo sëriñ Abo ak sëriñ Cheikh mi nga xam ne mooy imaam yi jàkka jooju ci biir di la xamal ne sëriñ bi nag. ba nu demee wax ko ko mooy sëñ Muntaxa sëñ Abo moo nu fa yabal ba nu fa yabalee nu dem wax ko ko man danaa fa yable te ni ko bëggee dana ko amee la moom ko lépp am na kon maa ngi nuyu nuyu euh, mbooleem njaboot ñi ma bokkal sëriñ Touba sëriñ euh, Amsa ñëw na fi sëriñ Moustapha Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Lamine ñëw na fi yàlla dogal mboolem njaboot gi ñëw nañu ak sëriñ lu Mbacké mi nga xam ne mooy sëñ doomi sëñ Bara Khourédia moo fi teewal mboolem doomi soxna yi ak ñi nga xam ne ñooy mbokki sëñ Tuubaa sëriñ abi bu boo demee nga ne sëriñ bi mm, sama mbokkum taalibe muy sëriñ Cheikhu mi nee sant na moom sëriñ Abo ak mboolem njabootug sëriñ Fallou bi di ko jaaree ci sëriñ ah, Bassirou Mbacké mi nga xam ne moo yor mooy sunu jaww ji di ko jaarale ci loxob sëriñ Abdoul Fatah mi nga xam ne moo yor kaddu kër nun de suñu xel dal na lool suñu yaakaar tam nag tasut te lépp loo xam ne ni namoon nañ ko ci bis wala ñu bëgg ko ci rek suñu sol defal lañu alhamdulilah kon nag ñu ngi sant ñëpp ah, dafa tolloog ne bis bi nag bañ koy waaj dañ ko doon teg ci loxo ay nit Seydou am na ñu ci jot a tudd bi nga xam ne nii yàlla dogal nañ tàmbali nañ ko di ko def dañ ciy jiital soxna soxna bal yi jigéen ñi ndax kat Euh, nit ki boo yoree kilifa ku ànd ak moom sa kilifa la kon moo tax ñu di ko tudd waaye jigéen la waaye nag moom il faut ñu jiital ko ngir ñi ñi ko tarajaloon ca la bokk ak ak ki nga xam ne tey lu nit am ci yoonu murid wii ci ab ak ci ak teg seen ak ñoŋ ak nga xam ne noonu fu nu toogee ci kaw ngeen toog suuf bu ñu ko amee rek njëbi man nag sama digganteeg Cheikh Ibra dama cee matut seere ndax man Cheikh Ibra daf ma ñulu dafa am loo xam ne day dox ci man ci moom bi Ibrahima moo tax dama ci dul man di sori waaye sëriñ bi daal soo demee nga ne sëriñ Abo bis bi maa ko wootee woon ba ma ko wootee nag li tax ma woote ko du wanewu du biir lenn man bi ma sëñ Fallu boolee ci boppam ngir yërëm ma walla ngir bëgg maa dimbali booba laa booba la noppi woon li ci des nag maag sama mbokk taalibe yi ñoo ko bokk muy ñi ma dox seen diggante ak Serigne Touba ñoo ci jàpp ànd kook man ba bis bi toll fii Serigne Seydou mii nag sama kilifa moo ma boolee moom muy Cheikh Mamadou Bachir lépp loo xam ne asgor man na ko ci asgor sum àndal def na ko ba bis bi toll fii kon Serigne Seydou jërëjëf yàlla na Serigne Fallou Faye di di jaarle nuyoo bi ci loxob Serigne Abibou mu tegal ma ko ci loxob kalifa bi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké moom itam nag ñu di ko xamal ne ko sëriñ Serigne Serigne am bi mi nga xam ne moo toog jotaayu Cheikh Ibrahima moom itam yónnee na fi ndawam li war lépp def na ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal nag diine ji ñu fi teew bari na lool suñ bokk yii nga xam ne tey dëkk bi ñu ne Ndakaaru la mooy capitalu Sénégal seen mbokk yàlla ne di mbokk lébu yi Saliou Ndione dafa bokk ci nit ñi nga xam ne mu lañ tudde bis bi yàlla dogal mu yabal leen ña nga ne toog bañ dikkee léegi kenn di rëfut kenn demul kon nag ñoom yàlla amel nañ leen jukkal ña ca topp mooy moo Gueye bi ñu ko tuddee ñoo bokk dëkk ca Pikine yàlla dogal muy xale bu yor ndomb ak tànk ñooy dox a dox ba mbir mi egsi ci moom ñu tudde ko ko ak ñi nga xam ne mooy am euh, Ablaye Timbo moom nag sëriñ bi naa la xamal ne at ñetti at nii yoo xam ne waxtu wu ma tàmbalee bis bi danaan ma li jëm ci saal bi maa koy def boole koog ay ay teraanga yu baree bare kon nag ñu ngi koy sant moom tey sant mbooleem njaboot bi Euh, ak Amadou jaram yi nga xam ne mooy sama meeru euh, bi ma dëkk euh, day tolloog ne as soo lebal soo dee as gor dana ko xam man as gor laa ab jullit laa taalibe bi sëñ Tuubaa la sëñ sama sëriñ waaye lu ma ni defal danaa ko xam kon nag am na ci loo xam ne mënuma koo bu ma tuddee damay juum damay demat dema dem ba dama ñi ma bëgg tudd ñëpp bu ma leen tuddee dina am ku ma fàtte dëgg la de te bëgguma fàtte kenn ndax yëf yi man mënuma ci dara lépp dama tiim dëgg la de amay lu li ma li ma ci def ak li ma ci man yéen yee tax ma man bu dee ci wàllu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal diine ji muy sox ku mel ne yaa seen dukkari nit la koo xam ne nii euh, euh, sëriif yi bu ñu fi dikkee ci moom la ñuy ne bis bi su ñëwee day mel ne bisam boobee moom bii la yamale dëgg la de bu ma ko tuddee nag day mel ne tudd naa jigéen ñëpp waaye ni ci des dañ ma jéggal te yàlla tax mbooleem ko ci def rek sëñ Seydou tudd na la la de te am na ci loo xam ne bu ma ci nekkaatee rek mën naa jóom hmm. ndax ku ma bàyyi ku ne sa bopp te man de as gor la ab jullit la sëñ Tuubaa laa yaakaar sëñ Fallu sama sëriñ kenn ku ne la nga def gis naa bu dee sama mbokk yi jàpp nañ ci bis bi bu dee sama xarit yi jàpp nañ ci bis yi bu dee ñi nga xam ne ñoo bokk nekk fii ci Ndakaaru bi ay gone yoo xam ne sëñ Tuubaa rek la ñu gëm di jëfal sëriñ Tuubaa na ci la nga am man nag mënumaa fay dara waaw am na ci loo xam ne tamit nag maa ngi yéen ko bokk na ngeen xam ne bis bi moom egg na fa fa ma ko bëggee woon na ma ko bëggee woon tam egg na ma daal sëñ Fallou laa mën ta fay wax ku nee ngi def man tam damay def rek mooy li ma def woote ko ngir yàlla ak jëmi sëñ Fallou maa ngi ñaan nag ci barkeb sëñ Fallou waaw yàlla dafa leen jàmm ñi ma ci doon ñaanal nag mooy ku mel ni sëñ Xalil ak ñañ ko bokkal ñëpp samay bokk taalibe nga ca samay bokk nga ca ñu ma doon ñu ne ku ne nga ca ñooñee nag la tax ma leen di tudd mooy ginnaaw bisu yaakaar la moo tax ma bëgg rek ñu ñaanal leen ci li nga xam ne lu yaakaar la ñu yaakaar ko feeñu tëgg yàlla defal leen ci lu kawe seen njort maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp sëñ Abibu waxal nga ma leen ma doon waxal lépp waaye biñ demee ba bis bi na a taxaw dañoo dem ci ci ki nga xam ne moo jiite réew mi wax ko ko mu def ca lam ca war a def Amadou Ba lam ca war a def def na ko ministre de l'Intérieur tam lañ ci war a def def na ko mhm. kon dara kenn ko des amul mhm. ba euh, boogaan nag mhm. direct la ñuy def nii fi ne télé baa ngi def direct. ci dëgg la de Bougane Gueye ci àdduna bépp te démb bërki démb la ne man lépp danaa fa yable ñu def ko direct ak mbooleem si ñii fi ne nga xam ne kenn ku ne man nag dama déggu tubaab site yëpp moo ngi leen waaye yi maa ngi leen di sant bu wér a wér bàyyiwuma kenn mm-hmm. sëñ Abibu euh, da nga delluwaat ci sëñ ba sëñ Abibu da delluwaat ci sëñ sëñ Abo mm-hmm. soo demee nekkoon ko ab taalibe ma fi ne mm-hmm. ku yaakaar sëñ Tuubaa fi ne ku sëñ fal du sëriñam a fi ne awuma nag mënuma waaye danaa ñaan ci barkeb sëñ falu ni ko sëñ Abib waxee ndax it kat kenn ku ne ka nga am ngay dugg ngay dugg ak géew te man sëñ fal la am walaay Mbàkke kon bay ba ngeen xool ma rek ma xool leen ah, nee na ngeen xool ko mu xool ko sunu aajo faju xool leen sa cheikh bu xool ñu sunu aajo faju la ilaha illallah sama doomi sëriñ la ko wax ah sama sama doomi sëriñ nee na doomi sëriñam moo ko wax muy sëñ Abibu kon nag ah Yacine nee na xool na la. Ah, léegi nag. léegi nag. sëriñ Abibou. sëriñ Abibou. mi toog sëriñ Abibou mi nga xam ne sëriñ Abibou mi nga xam ne mi ngi fi. waaw sëñ sëñ Abibou sëñ nee da koy xool. waaw may may may may leen sëriñ Abibou. sëriñ Abibou nee da koy xool mu xool. xool na ko xool na ko sëñ Abibou xool na. laa ilaaha illallaah xool leen image bi xool leen image bi. xool na dimanche bi sëñ Abibu xool na sëñ Cheikh sëñ Cheikh sëñ Abibu. sëñ sëñ bi nag xam nga Ablaye Ablaye. yéen ñii xool leen génn leen mbooloo xool sëñ bi. sëñ Abibu nee na. Ah, ñëpp nañ ko xool te buñ ko xapp xapal nee na nañ ko xool ndànk te buñ ko xapp xappal. laa ilaaha illallaah. sëñ Abibu dafa dafa am nag dafa am benn lu xew ci adduna bi. mooy Touba ca kanam dañ koy tudd di ko ci nee na Touba ca kanam dañuy tudd sëñ Abibu di ko tudd kon suñu dikkee ba fii may leen tuuti télé yi direct la yéen ñëpp arrière leen tuuti ñu may yi direct la nee na Touba ca kanam sëñ Abibu nee na ci sa làmmiñ la njëkk a ñu koy doxal muy liggéeyu Serigne Touba waaye yow sëñ Abibu mii. yow de mën nga cee lële di la dikk waaye yow ay góor nga ko bokkal teg ko ci seen loxo ñu koy doxal fuñ ko tuddee sëñ Abibu ñu bokk ak sëñ Fallu abi sëñ Abibu nee na dañuy yaakaar lim ko yor tax déedéet day liggéey sëñ Tuubaa bu mu tàmbali te sëñ Tuubaa moom amul tànki ginnaaw tànki kanam la am kon nag ku fi ne na nga indi ñaar téeméer ñu teg ko fii jox ko sëñ bi joxe leen ñaar téeméer Touba ca kanam police ñoo leen di sant waa police ñoo ngi leen di sant ñoo ngi sant directeur général de la Grand Théâtre directeur général du Grand sant nañu indi leen ñaar téeméer yi na ñëpp joxe ñaar ngir si nekk maamu sant nañ bu baax maamu ndaw sant nañ bu baax sëñ am ci général des Baye Fall yàlla na fi yàgg ñëw leen ci ñaar téeméer yi ñëw leen ci ñaar téeméer yi Touba ci kanam yi sëriñ bi moo ngi taxaw nee na duñ joxe ñaar téeméer Touba ci kanam yi joxe leen ñaar téeméer Touba ci kanam ñu na ñëw na ñëw dajale leen foofu jigéen ñi joxe leen ñaar téeméer seen seex yi mu laaj soxna yi joxe leen ñaar téeméer yi na ñëw na ñëw ñi koy laaj nga ñii laaj nañ ko indi bi ñoo ngi ñëw de ñoo ngi ñëw de waaw kay na ñaar téeméer yi bi doog a ku ci joxe sëñ Fallou dana faj sa aajo ku ci joxe sëñ Fallou fa sa aajo nanu joxe laa ilaha illallah sëñ Abibu Mbàkke yàlla na nga yàgg sëñ Cheikh waxoon naa la ne wallaay bàllaay sa doomi sëñ Fallou nga yow loo bëgg mu am sëñ Lamine Mbacké sëñ la boobu sëñ bu tëddee dane comme sëñ la yow day jëlee kàddoom dugal ko ci kàddu sëñ la bi sëñ la boobu waaye ñoo tax sëñ na ko bàyyam sëñ Abib joxe leen ñaar téeméer yi na ñaar téeméer yi